asalaamaaleykum euh, wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe fu ngeen ñuy mën a topp ci àddina ñu ngi fii ci jumaay tubaa euh, bu Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba ci Euh, tey di benn fan ci weeru Ramadan euh, dëppoo ñetti fan ci weeru avril li ko waral nag ni nga xam ne lañ ko baaxoo ànde ak yéen saasu nag waxtu ne ci ndigalu Cheikh Mamadul Muntaqa daayira muqaddamatul xidma ndogu yi nga xam ne mu ngi koy def li koy jiitu nag muy waxtaan yu am solo yoo xamante ni mu ngi koy laltaaye li nga xam ne ndogu yooyu mu ci faral di feggoo gan yu fasanti ko tey jii nag koo xamante ni jëwriñ la woon ci liggéey bi mu muy si mu sàmm mu Samba yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana euh, te njaboot gi mu fi bàyyi mu teg ci loxoom tey jii nag ñooñee noonu di fetli tànk yooyu tànk yu kóllëre yooyu nga xam ne façon nañ ko euh, ak daayira bu Muxaddamatul Xidma tey ji nag sëñ Abdou Rassaq ànd ak délégation bu am solo euh, kàddu gi mu bàyyee ko sëñ Abdou Xabir mu waral wax yëg-yëg ak tolluwaay ak fi nga xam ne foofu lañ bàyyoon liggéey bi ak ni nga xam ne noonu la ko seen waajuru seen woow doon doxale ñu ànd ko ak daayira Moukhaddamatoul Khidma di fës di di fës di fësaat kóllëre googu di ko wéyale bu baax a baax kon sëñ Abdou Khadir yaa ngi ci euh, sit bi nga xamante ni moo di MKTV bu daayira bu daayira Moukhaddamatoul Khidma waaye tam nekk télé jumaa ji euh, bisimilah ci kàddu aoudu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabil alamin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي التمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam moom la ñu nekk muy weeru koor waaye ziare bi ak ndokkeel boobu dañ ciy jiital sëriñ Mouhamadul Muntaqa ñaan xafidahu llahu wa raahu waaye di nuyu tamit mboolem waa daayiratul muxaddimatu xidma bi nga xam ne ñooy am taxawaay yu am solo yii ci jumaay Tuubaa ji buñ ci jiitalee sëriñ Afiya Busa ak mboolem ñu ko àndal ñu ngi leen ziartal di leen ndokkeel ñu yëkkati ay kàddu ci turu suñu xalifa suñu sëriñ suñu mag sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ sàmba mu yabal ñu fi boole ñoo suñu mag sëriñ Abdou Rassaq mu jiite délégation bi ànd ak rakkam sëriñ Fallou ak doom sëriñ Ahmadou di ab taawam di sëriñ Haydara ak jëwriñu kër sëriñ ci liggéey bi sëriñ Cheikh Fall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 ba ku ko gisut sax waxtu àjjuma boo dee njabootam boo fi génn daañu la dab laaj la ana sëñ bi baa mi ngi ci jàmm kóllëre googu nag sëriñ Ahmadou fas yéene ko feddali ànd koog njaboot gi rawatina nag ci weeru koor wi nga xam ne ak ci waxtu wi ñu toll nga xam ne waa ñu fi egsi yëpp day dem ci sëriñ Moustapha kon loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne noonu lañ joxe kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Abdou Khabir kaddu yi am na solo rafet na euh, kaddu yi kóllëre la kaddu yoo xamante matal la sëkk kaddu yoo xamante démb la woon lu yàgg la woon itam daayira Muxaddamatul Xidma ci turu euh, sëñ bu Bousso bégg nañ ci lool ñu ngi gën a jàpp couleur googu gën ko fas bu baax a baax ñu yàgg koo taxawee euh, sëriñ Touba nangul ñu ko bu baax a baax incha allah jërë ngeen jëf incha allah.